لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نجي سنتار سنو بروم سبحانه وتعالى مني ورسة غلات نداجتي نيغم بي فسيني جل لغا خمني موي بن بندي ابتيريم téere boobu nga xam ni bokk na luñ jàngoon démb mooy suñu borom moo ko wàcce wala ñu jàngoon ci saar ba génn suñu borom moo ko wàcce ngir ñuy settantal ay aayaam euh, yàlla wërsëgal ñu it ñu koy defee ci néegu borom bi di ko defee ci biir chahru ramadan bu bi ko defee ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole nangul ca it nangul mboolam ña nga xam ni ñoo ngi koy déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ca nangul it ñi nga xam ni ñoo dox suñu digganteeg ñoom di waa sud xam sa diine bi ak suñu télévision bi di Islam TV ak ñu nga xam ne ñooy technicien ya nga xam ne ñoo leen di taxaw kon ñu ngi toll tey ci juróom-benneelu aaya ci suuratu uh, zumar ci suñu borom di waxee xalaqakum min nafsin wahida incha su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne ey yéen doomu aadama yi xalaqakum min nafsin wahida mi ngi leen bindee ci benn bakkan summa jaala minha zawjaha gannaaw ba mu def ca bakkanam boobu loolu di peeram ba ca mooy soxnam sa وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج واتنا نيلين تجرو كرغي جروم نيتي بير يخلقكم في بطون أمهاتكم مولين دي بند كسين بيرو ياي خلقا من بعد خلق بندين تجنو بندين لو لب في ظلمات ثلاث ma ngay ame ci biir ñetti lëndëm zalikumullahu rabbukum kooku nekk na ñel mooy yàlla mi seen boroom lahul mulk mboolem moomeel moom dong la ñeel laa ilaha illa hu kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom fa anna tusrafuun mooy yéen fan ngeen wëlbatikoo in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum su ngeen weddee yàlla ko woom le la ci yéen wala yarda li ibadihi al du gërëm mukk li nga xam ne ci ay jaamam ak kéeféer wa in tashkuru yardahu lakum amma nag su ngeen gërëmee dana ko gërëm ñeel su ngeen sante dana ko gërëm ñeel leen wala taziru waziratun wizra uxra du yenn mukk aju yenn katu bakkaar lii du bakkaaru keneen ba mooy du yenu aji borom yen bu diis du yenu diisaayu keneen summa ila rabbikum marji'ukum gannaaw ba ca seen borom yàlla mooy seen delluwaay fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu xabaare leen lépp lu ngeen nekkoon di ko jëf innahu alimun bi zaati sudur moom day xamoon na la nekk ci biir dënd ya bi ngi noonu mbokk suñu téere bi suñu borom moo ko wàcce ci ñun ngir xamal ñu la gën a am solo mooy suñu boroom jalla waala waaye xamal ñu ñun ñooy kan doomu aadama yow yaay kan suñu boroom mu ne yéen maa leen bind ci benn bakkan te mooy suñu bay aadama ca la yàlla jël ci suuf ci place suuf yépp dajale ko bind ci doomu aadama bind ci aadama alayhi salaam looloo tax ba ni suuf mel noonu la doomu aadama yi mel am na ci ñu jaune am na ci ñu ñuul am ci xonq am ñu weex ni noonu tey jii li ngay gëm mooy li nekk ci kaw suuf ci ay milliards ci doomu aadama ñépp ay doomu aadama lañu comme ni ko wolof di waxe ci aadama lañ lañ cosaanoo noonu it moo tax ba ni suuf mel it noonu la doomu aadama yi mel am na suuf yu dëgër am suuf yu nooy am suufu kaza kaza jukkoy doomu aadama it noonu rek lañ mel mi ngi noonu gannaaw ba suñu borom mu ni jël na ca bakkan boobee soo delloo ci sunna moo lay jàngal faaruk càmmoñ ga la jël bind ci soxnaam sa muy xawaa loolu mooy la nga xam ni yahud yi gëm nañ ko ak nasoraan yi ak mboolem ñu am diine ba nag Occident créé li ñuy tuddee athéisme boo xam ne dañuy won gannaaw diine donc il faut ñu weddi yàlla ñu ngi noonu comme weddi nañ yàlla nag amatul yàlla kon créateur amatul seeni xalaat la ñuy doxe seeni xalaat nag lu ñuy wax mooy gannaaw ay big bang ak la amoon ci ay particulier ay cellules yuy dox fi de fii seen dof boobu di Darwin créer le hasard et la nécessité ñu ne doomu aadama dafa jaar fii jaar fii ba lim mujj nekk mooy golo ba xam ngeen damay naqarlu toujours ci passage yi bu ma ci yéegsee mbokk ba sun jamonoy tey waxuma biir Washington wala biir Paris loolu la ñuy jàngal seeni doom mais xatta ñun Sénégal ba tey loolu la ñuy jàngal suñuy doom ci am xale buy def ay sixième lycée cinquième lycée na xool ay kayem liñ koy jàngal mooy ñun ay siti golo lañ mu ngi noonu ñu ngi jëm ci um, l'homme homo sapiens l'homme nangam ay sëti golo lañ ci gàttal amul yàlla bu bind loolu nag mbokk ëpp naa def donte ne dégg naa it kenn ci ñi nga xam ni dañoo bew ngir seeni maam doon nañu woote ci lislaam ñoom ñu ñëw nekk ay buur seen gannaaw kenn xamul ñaata aaya alxuraan la wetti bokk na ca aaya bi mu ne bu ñuy wax naan yàlla daa bind ay aadama ci ban gannaaw ba jël ci bind soxna mu ne non non non loolu mooy cellule mâle ak cellule femelle yàlla ñaari cellule la bind benn bi nekk maal benn bi nekk femelle kii moo nekk góor kii moo nekk jigéen bokk haza kufr loolu ak ak weddi la donte ne mi ngi tiim des centaines ci ay milliers doomu aadama di wax xamuñu li muy ci li muy wax dara loolu mbokk kii féer la dama loolu ñoom dar bi ñooy wax loolu yow li ngay gëm mooy yàlla daa bind aadama taxawal ko mu nekk jëm mu jël ci faaram bind ci soxnaam taxawal mu nekk jëm loolu suñu borom yàlla boole ci avant muy dem ci régle générale mu ne wàccal naa leen ci bàyyi may juróom-ñetti peer al an'am mooy bàyyi ma yi yàlla wàcc ci ñun tàggat leen ñu nangul doomu aadama ba bu la neexee ngis ku dem yeew wi gétt giléemam géttu nagam géttu xaram yooyu mooy an'am su manita azwaaj min al da'ni wa min al ma'zi wa ibli wa min al yeewi leen ñu dem lekk lekk lekk ba suur ngoon jot ñu dellu siwaat nga ñëw rat naan bu la ci neex rendi boo bëggee tukki jël war loole lépp suñ borom mooy ko tàggat muy xéewal ñeel ñu mu ne amaa nag yéen ñi gannaaw seen ñaari maam yooyee maa leen bind ci seen biiru yaay yi bokk sunu borom moo ñu bind ñun ñëpp suñu biiru yaay yi mu ne bi ma leen di bind yéen ngi nekk ci gannaaw ñetti lëndëm da nga xam ne mooy biiru jigéen bi am na ci biir la yàlla def jagleel jigéen muy moom boobu nga xam ne moom ñu tudde matrice ca la doomu aadama di cosaano borom bi dugal ko ci beneen tissu bi ñu tuddee placenta ñetti yooyu nga xam ne moo muur doomu aadama fa la ko yàllay fekk bind ko xoolal doomu aadama suba di ni mu mel yépp nuroo ñépp tolloo sa loxo yi ni mel tey jii bu dee ne dañ naan y'a plus de sept milliards ci doomu aadama ci kaw suuf buñ tegoon fii un milliard ne ne ne nit indi ñaar ñu nuroo wallahi ñaar ñu nuroo amuñu ci kaw suuf cest à mën nañ nuroo may ñaar ñoo xam ne benn lañu ñu lu leen différence amul ci kaw suuf am déet jàkka ji <laughs> mu ne boo doon xool Bilal Thiam xool xool ah Bilal di ngi ni am déet tey jii dangay ngay xool waxuma ñuy dund ci kaw suuf waaye dangay xale yooyu def génie en herbe génie en herbe léeg-léeg ñi dee woon depuis léegi ñu jóge un dañuy wone benn benn photo du ñu wone kanam gi yëpp de genn wàll gi lañuy ñuy wone rek ñu ne kii kan la gis eh kii dëggal la am déet ñu wone koo xam ne beneen côté bi la ñu wone rek ñu ne kii sengoor la waxuñu sax kanam gi yëpp mais genn wàll gi rek ñu ne kii sengoor la loolee mbokk lu muy wone allah alxaaliq almusawir ku nekk ci ñun fekk ni la sa biiru yaay gannaaw ñetti lëndëm bind la ko naka fa neexe waaw gaa yi nag nan ngay dem ba toll toll na sa baay nag di yaakaar keneen ku dul yàlla moomee ndax gàtt xel mënta passé abada te loolu damaa damay def loolee mu nekkoon ci ñetti lëndëm ya xoolal yonent yàlla yunus alayhi salaam keroog moom it ba mu nekkee ci ñetti lëndëm fanaada fi zulumaat an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin yalla ma fekkoon yoonu sa ci biiru yaayam wërsëgal ko fa la ko neex bind ko génne ko ci biiru yaayam bam mu nekk ci biiru balen ba nekk ci biiru géej gi nekk ci biiru lëndëm gi ca la woo boromam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin suñu borom ne noonu laa ko wuyoo génne ko yokk ay garaatam yónni ko ci dëkkam ñepp daal di koy gëm ngalla way moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni xam leen ne yàlla mooy ki moom ni ngeen di ko bay yaakaar keneen ku dul yàlla lépp looy yaakaar ci keneen yàlla ko moom yërmaane moo ko moom wërsëg moo ko moom xettali moo ko moom adduna moo ko moom alaxira moo ko moom naka ngay demee di ko sakkoo ci keneen ku dul yàlla fa anna tusrafoon borom boobu nag ne garawul su leen neexee weddi leen su ngeen weddee yàlla ko woomle la ci yéen mbokk jullit da ngay gëm ne wallahi li ñu yàlla jote woon laa wax waxuma di lim ñu wonut li ñu yàlla jote woon la planète terre suuf bi ñu nekk su génnoon ci moomeelug yàlla gi du toll ne pepp suuf bu ñu génne ci jàkka ji suuf planète terre bu ñu ko éliminé woon ci moomeelug yàlla gi représenté wul benn pepp suuf ci yaatuwaayu jàkka ji kon yàlla soxlawul doomu aadama yi ku ko jaamu sa bopp nga jaamul ku jaamuwul ku wom li la ci yéen bokk ni nag la ko soob loo xam ne moom da koo soob waaye aajowoowu ko nee na su ngeen weddee doy dinaa ci yéen du ma gërëm mukk ko ma bokkaaleel su ngeen ma santee nag ma gërëm ko naam su ngeen ma ma gërëm ko te ji da ngay gis un milliardaire boo xamee ni nii lam denc ca banque ba yàllaa ko xam ah benn jarbaatam ñu nuyu ko nijaay na nga def yëkkati 10 000 bokkal ko mu mu gërëm ko lool ndax soxla na ko soxlawu ko ñu ngi noonu il a des milliards suñu borom nag lahul lahul masalul ala misaal ba gën a koy moom la ñeel soxlaalul kenn dara mais nag jaam bi mu joxe liberté ne ko su la neexee jaar ci yoonu yëpp la neexee jàdd jaam boobu gërëm boromam sant boromam dellu ci boromam ko mel noonu yàlla da koy gërëm looloo tax radiyallahu anhum ñu demoon def lu baax radiyallahu anhum gërëm googu mu lay gërëm moo tax nee na la in shakaratum la azidannakum fii ak yéen a ngi may sant danaa leen dolli mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala li ëpp ti nit ñi di bokkaale da nga dañuy jàpp ne ñun kat nañ yaakaar diw suñu ko yaakaaree allaaxira dana gàddu suñuy bàkkaar masalan boo demoon ci nasaraan yi nasaraan yi la nga xam ne mooy daa giñ ne daaj nañ ko Isa ibn Maryam ci croix mu Jésus Christ dañ ko daaj ci croix bi <coughs> ca yow julli dangay gëm ne kenn daaju ko waaye ñoom dañ ne Isa moo volontaire ñëw ñu daaj ko ci croix bi ngir mu racheter li ñuy tuddee péché de l'humanité <coughs> mooy suñu baay aadama lekk na ci garab gi bàkkaar boobu topp ay doomam ba doom yooyu yépp di mooy Isa nag ñëw na ngir loolu képp ko gëm Isa rek loole mooy wàcc say bakkaar boo ñëwee ci jullit yi même chose dañ naan sëñ diw bi muy dem tukki sàngam demul woon pour boppam daa demoon pour liggéeyal ñu yaa ngi dégg bokk nag borom bi ne déedéet amul kenn kuy gàddu bakkaar te mbokk ku yàlla bind da ngay gàddu bakkaar yonent teg ku dul yonent ngay gàddul bakkaaru keneen déedéet du ko mën a gàddul bakkaar am maa nag mën naa faggoo ca moom moom bakkaar waa ji nga xam ne dafa ñëwoon tey jii ci benn dëkk xamuñu luy carte mu ñëw jàngal waa dëkk bi duñuy ñuy carte moom cartam gi dañ ko ci bindal euh, bakkaar waa dëkk ba ko fa carte dañ ko dolli bakkaar bu toll na kooku mu jàngal carte te du wàññi ca bakkaaru kooku dara du ko ci gàddul dara waaye nag moom képp kum jàngal mu kookee comme jàngal ba ila yawmi diin bàkkaar yooyu day dellu ci yow moo tax yonent bi alei salatu wasalaam nee na fu ñu reyee nit ba ila yawmi diin yàlla dolli ko ci bàkkaaru doomu aadama ji jëkk rey frère am xam naa <laughs> ndaw ndaw bëri bàkkaar yaa ngi dégg waaye nag du ko gàddul bàkkaar kenn du gàddul kenn bàkkaar tuyaaba it noonu la demee doomu aadama mënoo jox kenn tuyaaba waaye nag mën ngaa nekk sabab mu am tuyaaba ca boo nekkee sabab mu am tuyaaba tuyaaba yu dañ la koy bindal mi ngi noonu tey jii da ngay gis ne mën ngaa dem ci ci ci benn dëkk boo xamee ni ñoom xalaatuñu naan dañuy tabax ay jàkka nga waxtaan ak ñoom nax leen ba ñëw ñu créé benn jàkka jàkka ju gisee fi ni ba ilaa yu mi din ku fa julli loolee da ngay gis ne suñu borom yàlla da la koy bindal la nga xamee ne nii moom mooy tuyaaba mi ngi noonu euh, ñu ngi ci profito di ñaanal kenn ci ñun béton beeg suuf bee ñu indi foofu Euh, biñ ko demee ba ne ko fi mu nekkat keesu jàkka ji lañu fa foogoon pour defar euh, wax dëgg yàlla xaalis moom daa jeex moo ñu indil loolu yal na yàlla barkeel ko barkeel alalam ak képp koo xam ne nii jël na def ci liggéey liggéeyu jàkka ji ba bàyyi la yumi diin ku ci julli ku ci jàng ku ci def lépp tuyaaba ja dalay fekk loolu la borom bi subhanahu wa taala wax borom boobu nag ni xam leen ni ci man day ngeen di dellu mboole seen moo xabaara leen li ngeen doon def ca man dama xam li nekk ci biir dënn yi loolu it yow jullit lan la lay jàngal bul jël mukkoo jàpp ne jëfi diine daa yem ci jëfi ci kaw bal innamal amalu bi niyaat lépp looy def na ànd yéene ci li nga yéene muy lu baax suñu borom yàlla subhanahu wa su xamee ne ngant moo tee nga def ko yàlla da koy bindal lépp loo yéene muy lu bonit su dee nganta tax defoo ko bàyyi woo ko ngir yàlla waaye nganta tax defoo ko yàlla dana la ko bindal moo tax yonent bi alayhi salaam ñaari jullit buñ dajeeg seen jaasi kii rey ak ñu rey yëpp safara la jëm mi ngi noonu lu tax kii rey nañ ko mais li lan la deeyaale mi ngi deeyaale yéen rey mbokk jullitam inna allaha alimun bi zati sudur mu ngi noonu Cheikh Ousmane. wa وله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله, وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أرحام النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بارك الله فيكم <clears throat> سنبروم جل وعلا مني wa iza massal insaanu durr heure bu laalee doomu aadama lor daa rabbahu muniiban ilayhi ma ngay woo boroomam di jéng di jëm ca moom summa iza xawalahu nicmatan minhu gannaaw ba heure bu ko joxee xéewal goo xam ne ma nga bawoo ca moom nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu mu fàtte lam nekkoon di ko jàng di ko woo lu jiitu wa jaala lillahi andaada defal yàlla ñenn ñu ngi koy dendeleel ay nawle li yudilla an sabili ngiree mu sanke ci yoonu yàlla woowe qul tamata bi kufrika qalila neel xiiwlul ci sa kéefér gi tuuti rek innaka min ashaabi nnaar yow de yaa ngi bokk ci ñooñu sawara amman huwa qanitun ana al-layl amu ndax ki nga xamne da nek di toroxlu lul boromam ci bir waxtu guddi ya sajidan wa qa'ima nek aji sujud ak di taxaw yahzarul al-akhira ma nga nek di fuglu al-akhira di ko ragal wa yarju rahmat rabbi way di yakar yermane boromam qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun neel ndax dana yem ñi nga xam ne dañoo xam ak ñi xamul innama yatazakkaru ulul albab dana nekk day di fàttaliku borom xel yu mat yi qul ya ibadi allazina amanu neen ay yéen samay jaam yi nga xam ne da ngeen a gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom lilazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana dana ñeel mboolem ñiy rafetal ci dunduk àdduna gi la nga xam ne mooy aw yiw lu rafet wa ardullahi wasia suufa si yàlla si lu yaatu la innama yuwaffa sabiruuna ajrahum dees na matalal muñ ko dee seeni pay bi gayri xisaab ci lu àndul ak benn regle mi ngi noonu mbokk suñu boroom jalla wa mu ne doomu aadama day nii la mel mooy heure boo xamee ni ni lor daa wàcc ci moom dafay woo boroomam di toroxlu di jëm ci moom te loolu mbokk moo nekkoon la nga xamee ni nii mandarga ña nga xam ne xamuñu seen boroom duñ ko xam mukk lu dul ne jamono bi ñu nekkee ci coono allahuma lu dul lenn ci suñuy maam li ñuy wax kéeféer ga woon day moo tane diine tey ji ndax tey da ngay gis jullit boo xam ne nee na jullit la waaye jamono bànneex ma ngay woo yàlla jamonoy tiis ma ngi woo ko dul yàlla ñu ngi yaakaar diw ñu ngi yaakaar diw ci amul dara bu añee du reer loolu mbokk mi ngi noonu amma suñu borom nee nag doomu aadama yi bu ñu jàqee boo seen boroom suñu borom xëy suba xëpp ko xéewal xéewal goo xam ne bànneexal na ko muy xaw wala xéewal goo xam ne nii gu gu mu yaatal la ci moom mu ne mu daal di fàtte lam nekkoon di ko woo démb ca loolu it mi ngi noonu mooy li waxkat yi wax rek bu li ñëwee ñu sant keneen bu natt ñëwee ñu ne ci yàlla waaye mbokk doomu aadama la waaye heure bu yàlla wàccee ci xéewal bul fàtte démb fàttalikul ne da nga nekkoon ci coono yàlla xëcc li la su booba lan moo la war mooy ahsin kama ahsana allahu ilayk rafetalal comme ni yàlla rafetale ci yow nga bañ a bew bañ koo sant keneen te wallahi tey mbokk jullit li feeñ rajo yeeg télévision yi mboolem xéewal yi nekk Sénégal jàpp nañ ni keneen moo ko def ku dul yàlla jalla wa ala ko loolu lu grave la bal xéewalu àdduna yi yépp sax dañ koy delloo ci loolu yàlla dong moom muy xéewal borom boobu nag ni da ngay gis ñooñu nag nga xam ne yàlla yaatal na seen xéewal xéewal ga dañ koo jël nag di ci riire laate ci yoonu yàlla te it wallahi lu ñuy gis la ay gars yoo xamee ne nii yàlla xëpp na leen ay milliards ñu mën a woote ay ndaje mën a rey ay junni nag dajale ay xale góor ak jigéen mag ak ndaw fecci jaxasoo ñu gëm loo leen ni xéewal yi kenn rek lañ ci war a sant kan keneen ku dul yàlla ñu mën a daje ay téeméeri daje juróom-ñetti fukk doo dégg yàlla bal Sénégal la ñemee gis ko dégg naan santuma yàlla santuma yonent yàlla man suñ diw rek lay sant moo ko loolu yéen ñëpp yéen a ko yéen a ko mu nekk mbir yoo xam ne nii lu métti la ba ko yàlla wax quatorze siècle yéeféer yee taxoon waaye nag yonent bi alei salaam ne woon na bala àdduna tukki sama xeet mboolem fu mushrikuuna ya ak ahlul kitaab ya yegg ca mbon sama xeet dana fa yegg balaa bis penc di taxaw yàlla na yàlla musal ñu ci mbokk mi ngi noonu jël xéewalu yàlla yi di ci réeral doomu aadama yi waaye suñu borom mu ne xéewlul tuuti rek xéewlul tuuti wallahi bu doon mille ans sax tuuti la bu doon mille ans tuuti la mbokk àdduna dafa gàtt tamatta bi kufrika qalila yaa ngi bokk ci ñañu sawara ah kon yow ndawal julit xoolal benn waaye ngi ci ndawi sawara la bokk yàlla xawwalahu ni'ma xëpp koy xéewal luy xéewalu àdduna am na ko suñu borom na ko aci bis bànneexul rek waaye yow sawara mooy sa wàccuwaay loolu kon mbokk nattuwaay bi du ci àdduna nattuwaayu doomu aadama bu leen pesé mukk ci li ñu am ci àdduna bu doon looloo demal nekk juif wallahi alal àdduna ab alalu àdduna bi ñi ci ëppale mooy race bi tudd juif ca matuñu sax xam nga zero virgule nangam pour cent de la population mondiale ils font à peu près ay 15 millions de boo leen dajalee tous les juifs du monde réuni waaye tey ku xam lan mooy économie xam toutes les grandes banques xam toutes les grandes sociétés les euh, li ñuy tuddee euh, cinéma yeeg lépp loo xam ne nii day tas xabaar ci àdduna bi dangay xam ni juif yi ñoo ko yor kon alal kenn du ca natte ak mbaax borom boobu subhanahu wa taala ni bànneexul tuuti innaka min ashabi noor mu dellu nag ca contraire ba waa jeey jël nekk ca bëccëg ba yor alal yàlla ji di réere laata ci yoonu yàlla amma waajee moom daa bàyyi ba xaaju guddi ana alleyli ci xaaju guddi mu daal di rocceeku ci lalam taxaw ci kanamu boromam di jàng téere boroomam di sujuut ci kanamu boromam di ragal mbugalu boroomam gaa yi xool leen li bala ñuy jàll ñoo xam ni lu bari suñuy maam lañuy ñuy def ay njuumte wallahi da nga ci gis ñoo xam ni ay trois heures du matin la ñuy yeewu waaye bu ñu yeewoo daal dina bëcc kurusub junni يا لطيف يا لطيف يا لطيف كيس ميل فوا يا سمات يا سمات يا سمات فرسي ميل فوا يا مبوك لولو يننتي بي جانجلي وكو والله اي صحابة خمون نيوكو وون حتى اهل الكتاب خمو نيوكو وون سنبرم من ومن اهل الكتاب امة القائمة يطلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون سنبرم من يلين جيتي وانت اهل الكتاب لأن روتيكو قدي تخو دي جانج آي برم بولكو سجود سنبرم لولي وخجولتني xoolal ki yow xaaju guddi taxaw ci kanamu boroomam mi ngi jàng téere borom bi di sujjuut teewul mi ngi ragal mbugulum yàlla mbokk mbugulum yàlla ku la ko garantir moo la fa nar a yóbbu wallahi jullit du deñ ji ragal mbugulum yàlla lu dul daa wàcc siraat mi ngi noonu tànk wàccegoo siraat sa xel du dal ci mbugulum yàlla mi nga noonu xatta yonent yi bu ñuy nekk siraat lu ñu def allahuma sallim sallim mi nga noonu musalal musalal waaye nag boole nag yaakaar yërmande yàlla te loolu la jullit di boole ci xolam mooy ragal mbugalu yàlla waaye nag yaakaar yërmande yàlla ki nga xam ne daa ragal mbugalu yàlla yaakaar lu ko dara kooku xamul yàlla xamul boromam waaye ki jàppit ne àjjana moom c'est c'est fini comme ni ñu koy waxee au Sénégal Sénégal ñun dañoo yàlla dañoo may ay njiiti théâtre kat ñuy théâtre mboole mi jàpp ne li ñu wax alxuraan ak la am déet ana benn kilifa gu mag mu ne waa jii sëñ bi ñun àjjana gàcce rek la ñuy bañ waaye yàlla maam yi liggéey nañ mbir ba pare mi ngi noonu mi noonu am benn waay boo xam ne ci ñi gën a siiw Sénégal di wax ci diine ca la bokk mu ne man daal jàpp naa ne safara daal aw ah waay yàlla yàlla yàlla yërmandeem yàlla du dugal safara man daal safara daal jàpp naa ne mooy ñi nga xam ne dañoo yeyoo àjjana ñu wax leen dem leen àjjana ba pare saay saay seeg ñeneen ñi yàlla na leen xam ngeen yéen ñu bon leen xas leen xas leen xas leen waaye nag dem leen àjjana xas yooyu daal laa jàpp mooy sawara mbokk loolu kéeféer la loolu kéeféer la kéeféer la nan la yàlla détaillé sawara ci suñ téere bi lan lañ jàngi démb mbokk jullit ba pare ngay jàpp ne sawara daal mooy na leen yàlla xas rek mbokk loolu kéeféer la loolu nag du dara lu dul bëgg nit ñi waaye kii mooy waaj kii mooy waaj ñëw ko defee nga dajale say alal dajale say nangam waaye mbokk loolu lu néew la tamatta bi kufrika qalila lu néew la borom boobu kon di wax loolu nga la waay yow ndawal jullit del bàyyi xel loolu del bàyyi xel même bu doon trente minutes avant fajar di jot jógal nga taxaw sa kanamu borom julli ñaan yàlla subhanahu wa taala rasul sallallahu alayhi wa sallam heure euh, yi masaan sab la daan jóg mi ngi noonu daana jàng ay loo xam ne nii kenn ci dawi sahaaba yi musu ko saamal ñu topp abadan bu dee rakka yaa li ëpp onze la daan def moo ëppoon la mu daan def daana def léeg-léeg lu ko yées ak lu ko ëpp onze la daan def waaye kenn mënulaa nettali nan la daan guddee loo gën a toroxlu ci kanamu borom bi loolu la suñu borom gën a bëgg julli julli ga yàlla gën a bëgg dañ ko laajee yonente bi alayhi salaam mu ne tuulul xunuut mooy julli goo xam ne dafa gudd ab taxawaay amma nag sallallahu alayhi waxoon na ne ni nit ñi la ñuy jëkk a sàggane seen diine bokk na ci jox julli ak xam te jii lu néew ak néew lu ñuy def ci jàkka ji ñu bari bu ñu fa nekkee gan bu ñu demee dañuy kaas foo ñuy seen julli sa pas la peine fekk yow dalay leer ne xalaatoo julli sax un dixième mu julli yonente ba sallallahu alayhi wa sallam mbokk suñu borom nag mu ne waaw ndax dana yem ñi xam ak ñi xamul ay yow ndawal jullit kan mooy ki xam ki xam mooy ki xam boroomam di ko toroxlul di ko yaakaar di ragal mbugalum waaye du xam du question ki xam mooy ki fexe ba naawal avion yi ñu dem ci kaw asamaan ku xam du fexe ba ki créer des des ordinateurs et des portables bokk ñooñu dañoo jàng rek règle bi yàlla tëral nii ci àdduna fàtte nag règle bi gën a mag ci règle yi mooy règle bi yàlla tëral ngir allaxira te mooy diineem ji moom la borom bi wax ya'lamuna zahiran min alhayati dunya fexeel bokk ci ñi xam ñi xam mooy ñu wéetal seen borom toroxlul seen borom yaakaar yërmandeem ragal mbugalam borom bi subhanahu wa taala nee na ñii fàttaliku mooy borom xel yu mat yi muy ulul albaab borom bi nag ne ay yéen samay jaam ragal leen seen borom def leen samay ndigal bàyyi samay tere ñi rafetal danaa leen may ci àdduna gi lu baax te loolu la ñuy ñaan yàlla rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana képp ko ragal yàlla rafetal jaamu gi danaa ko may ci àdduna lu baax ca it xam leen ne sama suuf dafa yaar soo nekkee ci kër ñu xatal la fa mun a faa jaamu yàlla seetal beneen kër quartier seetal beneen quartier <coughs> réew seetal beneen réew gàddaayal dem jaamu ji yàlla loolee da gis ni bu dee ne danga jàpp ne ah man da dañ maa bundu xatal ba bàyyi jaamu yàlla suñu borom yàlla nee na gaa yu mel noonee keroog ba leen malaaka yi di jël si mi ngi noonu alladina tatawafa tatawafahum malayka malayka zalimi anfusihim xaalu fi ma kuntum xaalu kunna mustadafina fi l bu leen malaaka yi laaje waaw yéen lu tax daawu leen jullee ka woor aka jaamu yàlla ñu ne ah ñun kat dañoo néewaloon doole ñu ne leen waaw ndax suufa si yàlla si yaatuwul woon ba ngeen dem fa tey la ëpp ci doomu aadama yi li tax ñuy immigré ñaar la immigré ngir wuti xaalis émigré ngir daw ay guerre gis ngeen Syrie tas des millions de Syriens tasaaroo de par le monde loolu ngay gis Irak mu ngay gis feneen mu ngay gis feneen amma gàddaay ngir rawale sa diine lu néew néew ci jaam yi ñoo koy def barab bi nag na sama suuf si yaatu na soo mënul jaami fii gàddaayal nga dem feneen ci xam ne nag ñi nga xam ne dañuy muñ te mbokk bokk na li gën a jafe mooy gàddaay ñu ngi noonu ñoo il faut nga muñ mu ne ñooñu nga xam ne dañuy muñ yàlla bu leen dee fay yowmal qiyaama kenn du ko réglé innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi xayri xisaab ñu borom ne naan ah, julli lii la kii nii la kii nii la loolu bu dee nag muñ dañu leen di fay comme koor daa bokk ci wàllu muñ moo tax it yàlla ne maa koy fayal sama bopp loolu nag mbokk ñu bàyyi ci xel muñ googu mooy muñ ba def santane yi muñ ba bàyyi tere yi muñ dogal yi yàlla subhanahu wa taala di teg ci yow yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñi ci jàmmam yi muñ mi ngi noonu cheikh ousmane قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن ليعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباد بارك الله فيكم سنبرم كان مني qul inni umirtu neel man day dañ ma digal an abuda allaha muxlisan lahu diin ca ma jaamu yàlla sellalal ko diineem ci wa umirtu dañ ma digal ba tey li an akuna awwalal muslimin ma bokk ca ña jëkk jébbalul yàlla qul inni axaafu in asaytu rabbi neel man day ragal naa bis bu ma mooyee sama boroom عذاب يوم عظيم لغا خمن موي مبغلو بس مغ قل الله اعبد مخلصا له ديني نيل من داي يالا لاي جامو سلال كو ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني جامو لن لن نيخ يالا قل ان الخاسرين نيل ني بيرت دغ الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه موي نيغا خمن دانيو بيرت سين بكان يا بيرت سين نجابوت يوم القيامه ala la am day zalika huwa al-khusran al-mubin lolou moy pertange bu bir bu leer lahum min fawqihim zulalun min an-nar dana len ñel ci sen kaw ay keri sawara yo xamna sawara lay doon wa min tahtihim zulal ak ci sen suuf ay keri sawara lay doon zalika yukhawwifu allah bihi ibada lolou day la yalla di titale ay jaamam ya ibadi fattaqun ay yeen samay jaam ragal len ma walazina tanabu taxuuta an yabuduha ña nga xam ne dañoo moytu lii di taxuut muy lépp lu ñuy jaamu ca du yàlla ci ñu bañ koo jaamu wa anabu ila allah daa di jeng jëm ca yàlla lahumul bushra ñoon ñi dana leen ñiil ak mbég fa bashir ibad bégalal ma jaam yu mel noonu mi ngi noonu mbokk suñu yenente salallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni woon ngir mu jàngal nit ñi ni yàlla kenn du ko bokkaale bu doonte ne am na kenn kuñ doon xalaat bokkaale kook yàlla kon sunu yonent alayhi salaatu wasalaam lay doon ndax la shakk ni mooy gën ci mbindeef yi moom la yàlla di waxal moom la yàlla defal yépp mais suñu borom yàlla yërmaande bu mu am ci xeet bi tax na ba yonent boobu la waxloo la nga xam ne mooy lii ñu bëgg a wax benn mooy yonent bi waxal qul ne man day dañ ma digal ma jaamu yàlla sellalal ko diineem kon yonent bi jaamu yàlla la dañ koo sant mu jaamu yàlla lu ko diineem loolu rek doyoon na ci lay ci kenn warul bokkaale ak kenn waxuma yonent bi ndax moom jaam la kon yow yow jaam noo dem di jaamoo koo xam ne nii ab jaam buy jaamu la muy benn ñaareel bi moom dañ maa dénk ni naa bokk ci ñu jëkk jébbalul yàlla ca mooy xeet bi ñu nekk yonent bi alayhi salaam moo ci jëkk a jébbalul yàlla ca mbokk jébbalul yàlla mooy nangu ay ndigalam bàyyi ay tereem donte ne am na boroom xam-xam yu koy firee ni awwalal muslimin mooy yow pare naa man nekk benn jullit buy jaamu yàlla ci kaw suuf même bu ko ñépp weddi woon te loolu yàgg na am masalan ku mel ni ibrahim alayhi salaam suñu borom ne na inna ibrahima kaana umma naka borom xam-xam yi di firi mooy moo jëkk a jóg ci benn jamono di wax la ilaha illallah moom kese ci kaw suuf pare naa ci loolu yow ndawal jullit pareel ci loolu pareel ci nekk benn jullit bi wéetal yàlla dëkk bi yépp dañuy lekk riba pareel nekk kenn ku dul lekk riba yow xale bu jigéen bi dëkk bi ñëpp sànni nañ kenn nanguwul a muura pareel nekk benn jigéen bi muuru naka noonu ba jaamu yàlla yépp a jeex jullit war nga am yaqin décision ci ni lii la yàlla dogal buñ demoon ba xamatuma kenn ku koy def ci kaw suuf it man pare naa pour nekk kenn ki koy def ci kaw suuf awwalul muslimin borom boobu nag teg ci encore na ko neel waxal ko sa bopp yow waxal ko sa bopp ragal naa su ma moyee sama yàlla sama borom mbugal bu tar dal sama kaw man yonent yàlla bi ragal naa su ma moyee mbugal ba tar dal sama kaw ñu ne yàlla du mbugal kenn <laughs> yooyu mbokk suñuy wax la ala kulli xaal lii yàlla waxlu na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul ne aaya yi ca Makka la wàcc bañ demee nag ca Madina ca atum duram benneel ba ca nag ba ñu def sulhu Hudaybiya ca ma ànd ak sahabatul kiram ñoom ñëpp ñu daldi jaayante ak moom ba yàlla indi al fath ba muy nibbi Madina da ko suñu borom yàlla wàccee la suratul fath xamal ko nekk ne ko yow baal naa la loo na sa loo loo ma sa def baal naa la loo nar a def loolu moom am nga ci garantie totale la keneen ku dul moom nag amu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi noonu xam leen ni mbokk doomu aadama yi ñetti lañu am na ñoo xam ni daan dugg aljanna ca kenn du leen mbugal yal na yàlla booluñu ca waaye nag mbugalum yàlla dem àddina taxula mucc ci mbugalum yàlla da nga gis koo xam ne dañ ko mbugal ci sukuraat mbugal ko ci bàmmeel mbugal ko yowmal qiyaam mbugal ko ci biir sawara doo koo génn yóbbu al yóbbu aljana fin ba baax na waaye yàlla na yàlla musul ñu li nekk ci diggante bi gis ngeen kon jullit dafa war a ragal mbugalum yàlla yow mi ñu woo ci riba ragalal mbugalum yàlla njaaloo ragalal mbugalum yàlla alali jaambur ji ragalal mbugalum yàlla lépp loo xame ne nii ak jaamu yàlla gu ñu war a def ragalal mbugalum yàlla ba bokk axaafu mi ngi noonu azaba yawmin azim borom boobu nag subhanahu wa taala ni ah, man yàlla lay jaamu dama ko bokkaale kenn waxal loolu nee leen nag yéen jaamu leen lu leen neex jaamu leen lu leen neex fa'budu ma shi'tum min duni te loolu it comme niñ ko waxee ci dara si passé suñu borom may na doomu aadama carte blanche bu la neexee léegi dem ci àll ba yett sa garab ñëw ne yàllaa ngi nii bu la neexee taxaw ne ma yàlla sax comme ni ko firaw na defe woon lu leen neex def leen mi ngi noonu suñu borom yàlla nag ne xam leen ñi perte dëgg mooy ñi perte seen bakkan perte seen njaboot yowmal qiyaama lii mooy dëgg-dëgg perte mbokk doomu aadama boo nekkee ci kaw suuf mën nga euh, liggéey am alal ñàkk ko mais bakkan baa ngi fi ba tey nga fexe ba am leneen amma alaxira bu dee njoñ nañ la ci ay chaîne dugal sawara yow perte nga sa bopp njaboot gi ñaari njaboot la mën a nekk njaboot gu baax la ñu nga ajjana perte nga leen ñi nga ànd ak yow ci sawara perte nga leen loolu mooy perte bi gën a mag amma bu dee jullit ñi gëm yàlla wéetal ko suñu borom mu ne allazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi iman alxaqna bihim zurriyatahum jullit ñi ñoom nga xam ne dañoo àndoon ñoo seen njaboot di jaamu yàlla yàlla day boole njaboot gi yépp dëkkal leen ci àjjana yu kawe ya yàlla na yàlla boole ñu ci ak suñu njaboot waaye ki perte dëgg mooy lii loolu mu lay won ne yow dawal jullit tekki woo dara échec nga ndax amoo dara déedéet mbokk loolu di pertaange xam nga liy pertaange nga perte sa diine fexeel ba dara taxu ngay un sànq sa diini malheureusement nag lu bari ci ndaw ñi nekk Occident wallahi dama ci dégg témoignage ak yeneen témoignage ci ñoo xam ne xamante wuñu ay ndaw ñu nekk Occident nekkoon fi di góorgóorlu ci diine dem jaxasoo tubaab jël seen diine teg fële am na ñenn boo xam ñu ne hoo sëñ bi diine ji daal dénkaal maa ngi ko denc aéroport Dakar su ma demee danaa ko jëlaat kan moo lay xam ne da nga dellu si waat suñu jàkk ji xaw ma ñaatee kees ñoo nekk ci Maroc bi kees yi fi nekk yépp ay immigré la indi yi ngi noonu loolee kon mbokk déedéet da nga war a dawe sam réew raweli ji sa diine dem Europe ñu ne la doo fi jaamu yàlla nga ne fa ñu ko Europe ba dem jaamu ji yàlla am maa nag ngiree adduna nar a yàqu nga ne kon naa yàq diine ci defar adduna mbokk borom xel du def loolu ñi perte mooy ñi perte seen diine borom bi zalika huwa alxusraanul mubin borom boobu nag subhanahu wa taala ni suñu duggee ci biir sawara sawara sa dana leen jël di lakk seen suuf ci ay lakkaay boo xam ne ni dana leen yëkkati ci seen kaw lakkaay ya nekk ca encore ngi mel ne rek kaddur gi baax ay ñebbe yi nekk ci ñoom suñ caam xam nañ ko ni muy baxe noonu ci diggante ba sawara mi ngi seen kaw sawara mi ngi seen suuf borom bi subhanahu wa taala mu ne lii de lay tiitale samay jaam mbokk jullit dafa war a ragal sawara yal na yàlla musal ci sawara waaye maadaama sawara téewul gars yi pour ñoom sawara ak <laughs> ndox mu sedd la ñu yemale waaye mbokk sawara dara melul na sawara dara melul na sawara suñu borom mu ne ay sama jaam ragal leen ma maa ngi leen di wax lu tax ngeen ragal ma zalika yuxawifu llahu bi ibadu yaa ibadi fattaquun ragal leen ma nu ñuy ragale yàlla def ay ndigalam bàyyi ay teram bañ koo bokkaale ñett yi lañ koy ragale mi ngi ñett yi lañ koy ragale amul leneen nag boo ko bokkaaleeg dara defal ndigal yi bàyyi tere yi gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala ne ah, amma nag ña nga xam ne ñoom dañoo bàyyi taaxuut taaxuut mooy képp lépp lu ñuy jaamu ci du yàlla képp kuy woote ñu jaamu ko même buñ ko jaamuwul képp kuy atte jaami yàlla yi ci leneen loo xam ni nii du la neex yàlla ñii ñëpp taaxut lañ tudd mi ngi noonu alam tara ila lazina yasumuuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablika yuriduna an yataxaakamu ila taaxut mbokk képp ko taxaw ne yow yaa am privilège taxaw di atte jaami yàlla yi ci say loi yow taaxut nga loolee ngeen xel bu baax mi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñooñu moytu taaxuur jaamu wuñ ko dellu ci seen borom ngalawaay ñooñu day dana leen ñël ak mbég bushra bokk julit yàlla dana ko bégal ci ay façon mën naa jege ci gént nga gént yàlla di la teral wala benn waay ñëw ne ah man de damaa gént yow ngay dugg aljanna damaa gént ngay nangam loolu gént yàlla dana ci bégal ay jaam mi ngi noonu euh, ay yoon wax naa ko fi ma waxaat ko ngir yàlla def ko muy dëgg dama gént gis suñu mbokk El Hadji Fajur Gueye bi may wax ak yéen fii toujours maa ngi dajeeg moom nii yàlla xamal na ma ci gént gi ni nii dañoo dañoo dañoo faatu mu ne ko waaw yéen ci lu ngeen nekk mu ne ma fi mu ne nii day suñu njaboot lañuy xaar pour ñu àddi dem aljanna yàlla na yàlla boole ñu moom aljanna yaa ngi dégg te it mu nekkoon exemple dama ko wax nii ngir ndaw ñi dama ko wax pour ngeen def ko exemple jàngoon ne ingénieur la woon yaa ngi yaa ngi dégg kon ci inspecteur Senelec gi waaye musuma fàttaliku nekk ak alaaji Faajur ngay julli jot ci julli jiwul jàkk am bilal ci am foo jàkk nekk dina ko wër ah loolee ñu bàyyi ci xel bu baax alalam daanaka mën naa lam ca sarxe foog naa war na double lam ci jariñoo loole kon dama koy wax ngir yéen ndaw ñi am na ay temps am na benn livre bu mu am benn encyclopédie boo xam ne ni jege na xaw ma vingt volumes bi mu ko jëndee fii ci euh, la nga xam ne nii mooy euh, bibliothèque bi bu siiw bu nekk bu nekk euh, biiru Dakar waaye moo gën a siiw ci ñuy jaay téere jeex na waa ji daal ji def na ko Sénégal ba Sénégal daj yow yaa ko fi am keroog ba mu jàngi sunna ba xam ne affaire aar yi dara baaxul dafa jël lépp taal ko yal na yàlla defal ko àjjana wàcc waaye loolee pour ndaw ñi ngeen bàyyi ko xel tubaab bi bañ leen a nax ko bañoon tubaab la ko bañoon tubaab la daana wax ni sikkim bu ci dara nekkuloon lu dul tubaab bi bëgg ko rek jaar ñu yar sikkim sikkim moom ba ñi ko xam xam nañ ñi la defoon ak ñu nga noonu loolee mbokk dama koy wax ngir yu def ko yóbbal suñu ndaw ñi borom boobu subhanahu wa taala kon mu ne déggalal ma samay jaam jaam yooyu mooy ñan mu ngi noonu Cheikh Ousmane الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب jazakumullahu khayra suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mu ne bégalel ma samay jaam allazina yastami'una alqawla ñooñu nga xam ne dañuy déglu kaddu ga fa yattabi'una ahsana ñu daal di topp la ca gën a rafet ulaika allazina hadahum allah ñooñu day mooy ña yàlla jubal wa ulaika hum ulul albab ñooñu day ñooy borom xel yu mat ya afa man xaqa alayhi kalimatul azab am ndax ki nga xam ne daa yey ci moom kaddu mbugal afa anta tunqizu man fi nnar ndax yow yaay kiy musal koo xam ne daa nekk ci biir sawara la ñu ngi noonu lakin lazina taqo rabbahum waaye ñi nga xam ne day dañoo ragal seen borom lahum ghurafun dana leen ñeel taax yu kawe ya min fawqiha ghuraf ca kaw loolu yeneen taax yu kawe mabniya yoo xam ne dañ ko tabax tajri min tahtiha al anhar muy daw ci suufam la nga xam ne mooy dex ya wa'd allah lii day moom mooy dugub yàlla la yuxlifu allahu al mi'ad yàlla du wuute mukk ak ay digam alam tara mo ndax gisuloo anna allaha anzala min as-samaa'i ma'a na yàlla day ma wàccee jële ci ko asamaan ndox fa salakahu yanabia fi l ard mu daal di koy def la nga xam ne yanabia mu ay tiwo ay tiwo yu mag yoon yu mu ko wutal ci biir suuf summa yuxriju bihi zara gannaaw bu mu génne ci am mbay muxtalifan alwanuhu yoo xam ne dana wuute lool melokaanam ba summa yahid gannaaw ba mbay ma day daal di lax fa taraahu musfarra nga gis ko mu nekk lu ñu joonal mu nekk jaune summa yajaluhu xutaama gannaaw ba yàlla def ko muy mbopp inna fi zalika la zikra nekk na ci lii day ak fàttali li ulil albab ñeel borom xel yu mat yi mi ngi noonu mbokk julit mbokk suñu borom wax nañu bégal jaam yi waxoon nañ ci sànq benn mbig te mooy gént gu rafet waaye bokk na ci it heure boo xamee ni nii jaam bi jaar na fu ko neex fe fu neex yàlla mboolem nit ñu baax ñi yàlla day dugal seen xol ñu bëgg ko di wax ci moom lu baax looli ñëw na ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla su bëggee benn jaam dana woo jibril ne ko sama jaam tel dama koo bëgg jibril wàcc ci malaaka yi ne leen ay malaaka yi suñu borom ne ne jaam diw da ko bëgg boole malaaka yi bëgg ko mbëggeel googu ñu wàcce ko ci jaam yu baax yi ñu bëgg la waxuma nag jaam yi bëgg la ñiñ gën a bëgg tey ci kaw suuf mooy mbalaxkat yeeg mbër yeeg nangam nangam waaye lañ jublu mooy <clears throat> jaam yi am tawxiid xam seen borom xam diine mboolem ko mel noonu bu déggee saw doxalin dañu la bëgg yal na yàlla boolu ñu ca gannaaw ba it malaaka yi heure buñ lay jël si ci sukuraat dañ la bégal heure boo wàccee ci bàmmeel ñu bégal la heure boo dekkee bis penc ñu bégal la bu bushra borom boobu nag jaame yi mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ni ñoom day daañuy déglu wax waaye dañuy seet la ca jub ñu topp ko bokk doomu aadama bu nekk ci kaw suuf lu ne ngay dégg lu ne ngay dégg su ko defee woote yi day bëri waaye nga la waaye jëfandikoo la sa xel suñu borom mi ngi utiliser udul albab wax naa leen lim ñëw ci alquran bëriwul à peu près ay seize fois la mais xoolal suñu ñaari page yi rek yàlla wax na ko ci ñetti yoon mbokk diine ko amul xel du ko dund ndax diine affaire u àllaaxira la boo gàttee xel da ngay fexe rek ba àdduna bi baax seytaane ne yàlla yàlla yàlla amul yàlla baax na jeex na waaye mbokk yow mi am xel yaay mën a peser àdduna bii day damay fee ñëw barki démb balaa ëllëg ma génn ko bi may ñëw indiwu ma dara bu may dem du ma yóbbu dara maa ngi jëm àllaaxira àllaaxira du jeex lu ma fa am maa ko fàggoo fii kon danaa def dana def attention borom bi nee na mooy ñooñu nga xam ni dañuy déglu kaddu xool kàddu borom ba topp ko boo ko kàddu gi gën a jub ah xayrul ahsan al hadis mooy kitabullah téere bu yàlla bi mooy la gën a jub ci lu doomu aadama di taw borom boobu subhanahu wa taala ni ñooñu de mooy ñu yàlla jubal te ñooñu ñooy borom xel yi mooy ñu yàlla jubal mooy borom xel yi te mooy ñi teg seen tànk ci alquran ak sunna keneen ku dul kii amul xel keneen ku dul kii amul xel ah, da ngay gis ne gaa yu bëri dañoo jàpp mbooloo ma kat bu ñu xoolee ñu ne ah médecin yaa ngi architecte yaa ngi ingénieur yaa ngi ci biir mbooloo mi mbokk képp koo xam ne yaa ngi dem ci mbooloo mu safaanu doxalinu yàlla yow danga nga am loo jàng ci ah, xeluk doomu aadama waaye abadan xel muy jëriñ yow amuloo ko boo amoon xel muy jëriñoo doo toog ci ci place yooyu abadan borom boobu nag subhanahu wa mu ne ñu mel nii day da gis na ñooy borom xel yi borom bi dellu siwaat ne waaw kii nga xam ne kàddu mbugal daay yey ci moom ndax yow yaay musal ki nekk ci biir sawara te mbokk loolu it yàlla dafay delloo rek joxoñ baaraam suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni dama laa yónni ngir yonent yónniwuma la ngay jubal kenn yonent yàlla mënut a jubal kenn wallahi yonent yàlla bu mënoon a jubal xam ngeen ko gënoon a sonn ci jaam yi mooy abi taalib yonent yàlla bi dafa judd gisul bàyyi maamam yor ko huit ans mu faatu huit ans la dugg ci loxoy abi talib ba am quarante ans nekk yonent yàlla su doon mooy jëbal ku ko neex abi talib mooy jëkk a dugg ci diine yàlla ci waaye abi talib abi talib gëmu ko ba ni muy faatoo gëmm ko loolu tiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom na ko waaw ndax yow yaay xettali ku yàlla dogal ne moom sawara a jëm donc mbokk julit ku yaakaar yaakaaral yàlla koy xettali ko xettalikul ci yàlla keñeen ku dul yàlla mënalu la dara gis ngeen afanta tunqisa man fi naar gannaaw ba nag suñu borom dellu si waat jaam yu baax yee borom xel yi toppoon leen ndigalu yàlla mu ne ñooñu nga xam ne day dañoo ah, ragal seen boroom ba fekk ko àllaaxira ma ngi leen di ña ñeel la nga xam ne mooy taaxi étage ya mbokk xam leen ne àjjana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na téeméeri daraja la nee na daraja bu nekk day séen moroomam ña ko féete kaw comme ni ngeen di séeni biddiw yi comme ni ngeen di séeni biddiw yi te wax nañ leen fii sànq d'après les scientifiques biddiw bi gën a jege mi ngi nekk ci euh, quatre années lumière après presque lu jege quarante milliards de kilomètres nee na noonu la ñuy séenante mooy première euh, classe mooy première euh, quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix ba baa firdawsil aala di première classe fa la yonent yi ak siddiqine yi dëkk ak ñi yàlla taamu ndax yonent bi alei salatu wasalaam bi ko sahaaba yi ne laajte ne waaw borom étage yu kawe yi xanaa ñu ñu mooy yonent yi mu ne déedéet wallahi rajulun mooy mooy euh, rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin mooy fexe nañ ba gëm yàlla dëggal yonent yi yàlla yóbbu leen ca yu gën a kawe mooy sellalal rek sa sellal nu mu lu mu mel sa place noonu lay gën a kawe moo tax mu naan bu ngeen dee ñaan yàlla ñaan leen ko firdaws mooy jullit day xir day xir ci jaamu yàlla xiir ci yaakaar yërmande boromam su ngeen dee ñaan yàlla ñaan leen ko firdaws ca mooy fa gën a yàlla na yàlla def ko suñu wàccuwaay borom boobu nag subhanahu wa taala ni dex yaa ngay daw ci suufam mooy suufu jardin ya dexi meew ya dexi lem ya dexi sàngara ya ak dexi ndox yu bokkul ak ndox àdduna borom bi mu ne maa ko diga ci dama wóote ay dig mbokk yàlla di wóote ay dig la waaye yàlla lim ñu wax ci téeréem bi nee na ñu jaar fii àjjana lañ jëm ñi jaar fii safara lañ jëm du ñu dem yowmal qiyaama mu naan la ma waxoon waqet yàlla du wax waqet de gis ngeen am na président bu daanu suñu réew daani ko wax waqet moo ko daaneel nan la yàlla di waxee waqet su ko defee kon ñu xam ne yàlla lim ñu wax ci téeréem bi loolay valable yowmal qiyaama de inna allaha la yuxlifu al miat borom boobu subhanahu wa taala ngiree it mu won ñu loolee nga xam ne yéefir dañ koy weddi ca mooy day dékki mu ne xanaa xamuleen leen yàllaay wàcce ndox jële ko asamaan gannaaw ba yàlla moo koy dogal ci biir suuf utal ko ay yoon yi muy jaar ay tiwo gis ngeen pompe jàkk jàng ne di xelli guddeeg bëccëg dafa am ay ndox yu yàlla ut ay bëti yoon mu ngi noonu da ngay dem profondeur à peu près ay 20 mètres gis benn bëtu ndox dem 40 mètres la nga dem ba 100 mètres gis forage boo xam ne nii moom kenn xamul ni muy def loolu lépp yàlla moo ko fay jaarale muy muy dox ji dem ci biir suuf si ba doomu aadama yi di man a gas seen yi di mën a def yëpp waaye gannaaw ba it moo ko versé ci surface bi ci kaw génne ci gàncax gu bëri mi ngi noonu gàncax googu ni muy nef nefee verte taaru fleur yi baram bi ñeen day yàgg rek mu lax ba yàgg mu wow nekk mboob mu ne àdduna it noonu la demee gars yi gis ngeen étage yu taaru yi gis ngeen katkat yi gis ngeen jongoma yi gis ngeen supermarché yi gis ngeen li fi nekk ci xéewal yëpp والله بلا يغ لب نيك بوسيير لان موي ديس موي جيف باخنا يوبلا اجانا بن يوبلا سوارا لول نا كان موكو مانا خام اولي الالباب ما تخص ني بروم يالا تيجي كو ني لا ذكرى لاولي الالباب لولو نياتي فاتلوكو موي بروم خيل يو ماتي يالنا يالا ماتال سوني خيل يالنا يالا ديفال نيا جيرو سوني واتي واي يالنا يالا موسل ني مبغلو ادنا مبغلو الاخره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين